la mën a indil Sénégal xëy na mën na faluwaat parce que am na ñu naan euh, Macky Sall il avait promis de de de de une élection en 2017 et que boo seetloo à partir de ce moment que ay jafe-jafem tàmbali ci boppu réew mi euh, ndax am nga gis-gis boobu benn ñaar aussi tey jii ni ëllëg xëy na du météo politique mais analyse la la la laaj en fait par rapport ak ni climat bi euh, tenduwee jamono jii nii un forcing boo ko mën a tudd en yan conséquences la mën yaakaaruma ne se présenter gëmoon ne dina dina jàll. yaakaaruma ne dina antu day indi crise et puis loolu euh, yaakaar naa ni baaxul ci ndax ni mu nar a génne. Mhm. dafay am njeexital ci ni mu nar a wéyale carrière te am na ay jéego yu mu def nekk na président Union africaine euh, am na lu bëri lu mu liggéey Sénégal donc euh, am na daal loo xam ne xëy na euh, bu génnee génnin bu rafet génn bu rafet dana baax ci moom dana baax ci Sénégal parce que dina andi réew mi mais am na noo xam ne su ko génnee coalition bi nar a ñëw c'est-à-dire ñi nar a ñëw mm-hmm. dañu construire une légitimité dans une confrontation violente avec lui maanaam lii tax doole coalition boobu sampu dafay nekk jàmmaarloo ak moom. Mhm. te loolu moo indi woon li daal Karim Wade ba ñu doon wax ne la euh, l'emprisonnement de Karim Wade est une demande sociale je pense que Sénégal te gis nañ après li ci li ci mujj xew. Mhm. je pense que loolu yëpp war na mën a ñàkk ñu dem ci ay élections yoo xam ne ñi war a bokk. Euh, bokk nañu euh, ñi nga xamante ñu yaatal géew mi. ñu xam ne yaa gagné après Macky Sall euh, am na lu bëri lu mu fi liggéey ci euh, ci wàllu euh, ci réew mi ak ci bitim réew am na moom moo def pont diggante Sénégal ak Gambie def ko diggante Sénégal ak Mauritanie mm. donc loolu am na ay décennies yoo xam ne ñu ngi koy jéem a ñu ngi koy mbëbët te mujj la antu ci moom la ci ci présidence am la pétrole bi feeñe mm. donc am na lu bëri yoo xamante ne yàlla dogal na ci moom la ko réew mi amee kon war na fexe ba rafetal ni muy génne parce que après daf ko nar a topp te daf koy topp non mhm. seulement ci de façon immédiate mais daf koy topp pour l'histoire mhm. voilà pour l'histoire maanaam euh, taarixu Sénégal war na jàpp ci moom loo xamante ne lu positif la parce que am na lu bari loo xam ne liggéey na ko depuis bi mu nekkee premier ministre. depuis bi mu nekkee premier ministre. il avait dit que ay chantier ay vision. ci donc pratiquement depuis ba léegi am na lu bëri loo xam ne def nañ ko Sénégal loxo maa ngi ci donc xëy na euh, bu la yàlla cëralee loolu yëpp war nga mën a euh, xam ne nag aussi euh, loo gis rek am na fu mu jeexee. Mm-hmm. nga jeexal ko ci nu mu rafete ñu mu gën a rafet ak une dernière question par rapport ak yi mu posé parce que là on est à dix mois de la présidentielle 2024 amul benn personnalité bu dégagé wu ci coalition coalition boo xam ne xëy na mën na jàpp fekkoon Idriss Seck est resté euh, wala euh, ñu dooleel ay nit wala ñu désigner carrément dinañ xam ne euh, kii dafay dem mais je veux dire jamono ji est-ce que jotul mu leeral position position am sax en réalité aajuwul ci moom ndax ndeyu sàttu réew mi moo ko génn ci jongante bi te constitution euh, réforme li moom moo ko bindulu mhm. ne kenn mënul def lu ëpp ñaari mandat yu tegloo te moom def na ñaari mandat yu tegloo waxuñu sax mandat bi benn yoon lañ ko mën a tollanti parce que bu ñu waxoon noonu dañu nekkoon mandat bi comme cinq ans la mandat cinq ans bi lañu wax mais waxatuñu mandat bi mais ki doxal mandat bi la ñu wax. ki hmm. doxal mandat bi nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Hmm. te loolu euh, ñi ngi ko am depuis 2001 constitution 2001 bi ci ci la ñu fale président Macky te constitution boobu moo euh, tegoon ne mandat yi ñaar rek lañ ci mën a am donc loolu lu leer la eh bien aajuwul euh, ci li nga xam ne mooy coobareem mais ndeyu sàttu réew mi moo ko ci génnee donc su fekkente ne dañ lay laaj ndax bëgg nga am bëggoo dafay fekk nga am sañ-sañ bi mais bu la ndeyu sàttu réew mi mayu sañ-sañ wi da ngay respecter tënku ci li ndeyu sàttu réew mi